du nouveau régime dañu wax jub jubal jubbanti ñoom bu ñu wanee ne slogan boobu gëm nañ ko te dëgg la nañ ñu wan ne ñoom dañu jub dafa ñaaw ay père de famille saa yu ñu bëggee jot seen xaalis rek grève de la faim buñ ñu fayul na te fayuñu am di nee na ñetti fan déglu nañ leen ñetti fan mais au-delà de ces trois jours là yéen ñii ñëpp commencé ko ci ñun dama ne j'avais prié dama ñaanoon yàlla pour aujourd'hui ce jour-ci ñu refuser ñu suñu auto suñu demande d'autorisation parce que ñu bañaloon ñu ko dañuy génn ñu nangul ñu ko dañuy génn suñu amee seen ay lacrymogènes nous sommes prêts à faire face ils n'ont qu'à venir nous nous nous bombarder de lacrymogènes mais nous ferons face pour entrer dans notre dur duñu dellu ginnaaw tey duñu génn dellu ginnaaw suba te duñ dellu ginnaaw gannaaw suba